yaa asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi ziara di màggal di ndamoo di tiitaroo di leen bëggee bu wér kontaan ci yéen bi mbaa yéen a ngi si jàmm alhamdulilahi Euh, bëggoon ñu commencé waxtaan bi comme ni koy defee mais waxtaan bi yëpp lu ñuy lu ci gën a jublu mooy fexe sénégalais yi focus sur l' essentiel est vrai on est un peuple très diverti un peuple très émotionnel extraordinairement émotionnel kooku nag euh, je pense que suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon Euh, si suñu culture la bokk si suñu culture la bokk parce que koñ boo gis ku ci yeewu yaa ngi dugg kër jàmbur yi commencé nuyoo des salaamaalek jeex Jóob Njaay Jum Joxaane Jong whatever Ñas Mbàkke Fall et cetera et cetera donc loolu dafa def ba nga xam ni dañoo bëri mande peuple bu bëri yërmande lañ peuple boo xam ni on n'est pas violent sax exceptionnelle la nit bu violence sax da ngay exceptionnel ci koñ bi ñëpp dañuy xam ne yow tu es donc dëkk boo xam la dëkkub jàmm ak salaam la dëkkub paix la buñ fa cultiver boo xam ni suñu maam yi ñoo ko fa bàyyi woon politique bi nag bëri na lu mu yàq bëri na lu mu yàq bëri na manipulation bëri na mensonge bëri na njublaŋ bëri na sàcc politique Sénégal sax boo koy wax sax mooy il faut nga nekk sàcc il nga nekk fenkat bu lay wax ne da ngaa maîtriser politique mooy fenkat nga mooy ku mun a fen nga mooy ku mun a njublaŋ nga mooy ku mun a def di faux nga mooy ku mun a utiliser faux usage de kooku la ñuy wooyee ne kii dafa maîtriser politique bi mais nit mënul baax Sénégal ñu ne da nga maîtriser politique bi amul benn doomu aadama bu set baax ñu ne ko xam nga politique bi da ngay bon pour nga mun a ñu ne kii xam na politique senegal c'est-à-dire politique Sénégal yëfu caga la bandi salté wuyu agression dajale ay nit fay leen euh, jënd ay achat de conscience et cetera et loolu moo dem ba lépp a yàqu lépp a yàqu léegi nag boo xamul fu nga jëm da ngay dellu fa nga jóge mooy tax lu may wax sénégalais yi mooy heureusement avec Ousmane Sonko on a pu démystifier yàqu-yàqu yu bëri ci société bi Sénégal avant l'arrivée de Ousmane Sonko malgre que ñi ngi fi newoon di jéem a sensibiliser mais c'était pas lu dajale mooy sénégalais yi lu ñu lire ci journal pour ñoom yàllaa ko wax lu ñu dégg ci presse bi pour ñoom yàllaa ko wax fekk presse bi ay Modou Ndiaye ay Fatou Khoule ay Ami Soxna ñoo ci nekk am ay kër bëgg lu ñu lekk am ay fenkat ñooñu ci société sénégalaise bi la bokk ils sont pas extraordinaires ay nit la ñu am papa ak yaay yu jo sa kër am na caga ci biir am na fenkat am na trian am na njublan lépp a ngi ci biir journaliste yi lépp c'est la société sénégalaise en miniature ñoo fa nekk sénégalais yi dañ doon dem ba nga xam ni lu ñu dégg lu nuruk lu génn ci journaux rek ñu dem commencé ko relayer naan ay maa ko dégg fii maa dégg rajo rajo tumbux maa dégg rajo bundux fekk ay fenkat ñoo ci nekk ñu ci bari ay fenkat lañ ñu ci bari ay ay journaliste lañ man maa leen jox tur boobu journaliste Sénégal lu fa nekk ci journaliste matuñu cinq tout le reste des journalistes du lu ñu lekk ak lu ñu naan loolu nag avec l'arrivée de Ousmane Sonko dañoo démystifier lu bari parce que dafa mel ni avec l'arrivée de Ousmane Sonko njuuj njaaj yi les masques tous les masques sont moo tax Maïmouna Ndour Faye bii nga xam ni mu génn di wax am ñu ci doon profito di ko bëgg def yëfu politique man xam naa ni lii du yëfu politique Maïmouna Ndour Faye génn na bu yàgg mi ngi këram di waxtaan waxoon naa leen démb man samay wax jalu muus la da ngay wax gis day ba ma leen di wax paaka mburu la am ñu doon reetaan naan paaka mburu <laughs> moo laa li leen paaka mburu la paaka mburu après le Sénégal yëpp xam ni lii paaka mburu la mais man nee naa leen paaka mburu jamuñu ko fenn fudul fii ci loxo nee naa leen jam-jam bi esparadra lañ ci def alcool fàtt nañ ko ñibbi na këram mi ngi këram di waxtaan mi ngi këram di waxtaan barki Seydina Mohamed mi ngi këram di waxtaan sangu na ba set ñu dóoru ko esparadra takkal ko ko mi ngi këram di waxtaan bàyyi dof yi nekk fa naan je compatis je compatis li am importance compatirul lu ci am importance nanguñu compatir sénégalais ñoo war a yërëm seen bopp compatiral ci ñi ñi rey compatiral ci ñi ñi tiire ay bal fetal compatiral ci ñi nga xam ni dañ leen a jàpp torturer leen dóor leen ba ñuy bëgg a dee yàlla moo leen sauvé mais sinon fa lañ doon jaaree yàqu ba faw compatiral ci ñi police jàpp tàpp leen compatiral ci ñi gendarme yi jàpp tàpp leen torturer leen poli leen takk leen mas leen courant jël ay cocktail molotov tagal leen fenal leen compatiral ci ñooñu bu dee yow nit ku baax nga may mën a nduur fay ci boppam njaalo la nekkee njaaloo wutum xaalis may mën a nduur fay journalisme amul xaalis may mën a nduur fay yàgg na ci lii de jëppi jamonoy Karim wad la doon suq ñoom Karim Wade ñu ko fay ñu ko fay dëpp ka dëppi jamonoy Karim Wade génération du concret fa lañ ko doon dëppee que depuis mu doon cagay génération di concret ñuy kuy ku war a ku ñu fa xale yi fa lañ doon jàngee yéeg ci moom si génération du concret fa la doon wutee weccet mais mu a ndur fay ñooñu daanu mu daw dem ci APR di leen cogg di ci wut weccet ci lay fayee journaliste am yi ci lay fayee média am mais may mën a nduur fay xëy gontu yorul ñaar fukk un journaliste sénégalais mënul doon millionnaire bu fekkee amoo yeneen dil mu ngi mel ni Bougane Gueye Dany dafa am yeneen dil ubbi ay entreprise am di jël ay nit journaliste yi sax fay ñu ko ko feneen la koy jëlee di fay may mënu ndur fa amul benn entreprise amul benn liggéey donc coggu ak jàgg la mën a liggéey ñu koy dëpp ko dippi gars yi am xaalis yi di ko ñam et puis mu mu leen jox seen xaalis certains me demanderont est-ce que amul jëkkër <laughs> bay yéen tamit yooyu moom je pense senegal Sénégal xam ngeen la société am jëkkër am far du dara am am jabar am am ay junni gel du dara tamit wala góor jigéen bu am ay jabar loolu du dara wala lesbienne bu am jëkkër lool du dara noonu la may mun na ndir fay demaat encore ci Prodac ba dóor fa encore ay millions moom day toppaate rek Mountaga Sy bu ma leen waxoon nga xam ne nee naa leen caga international la defaloon naa ko rëbb dëmm bu leen fàtte ba kii mu biiral ay seex takk ko mun Sy yéen a ngi fàttaliku loolu ko defaloon naa ko rëbb dëmm bu tàgg jër port bureau bu mu fa yor di fa tëddee ñoom may mun na ndur fay di leen yóbbu ay di leen yóbbu ay euh, sali am nafa ay kër et tout et tout mais jëkkëru jàmbur bi la jàpp di ndulli rek Mountaga Sy la may mën a ndur fay jàpp di ndulli rek ci moom lay jëlee ay millions di ci fay ay employé am ci moom lay jëlee lépp di ci fay ay employé am moom xam na lu muy def ku koy conseil da nga naan bàyyi jëkkër jàmbur ji nga dem liggéey yaa ubbi yaa fi ubbi télé boo mënul fay télé bu amul ay publicité amul dara donc télé boobu amul dërëm bu cogguwul ci journaliste yi du am fukki dërëm tey jii seen satan yi nga xam ne dañoo profité naan ay compatir damay condamné fii la xar mi jaar ñoom ñëpp nee nañ muut ne nañ muut ah kenn déggutu leen au moment où pa Abdoulaye papa Abdoulaye Touré doomu xaraam yi duñ leen duñ condamné de Pape Abdoulaye Touré tey génn na un récit bu daw yaram def defin bu ñaaw torture yi salte kenn ci ñoom doomi xaraam yi doon taxawaale ci Maïmouna Ndour Faye ndax benn paaka compatirul ci ñuñ damm pa Abdoulaye Abdoulaye euh, euh, Touré pa Abdoulaye Touré dañ ko damm ci loxo damm ko ci tànk torture ko daf ko lu ne kenn compatirul c'est des politiciens ils sautent sur l'occasion gis nañ ni Maimouna Ndour Faye nee na dañ ko agressé toll ñu dugg je compatis dëmm lañ je compatis ay lekk katu nit lañ am ñu ko bëggoon jël bu ko jiiñ waa Pastef Pastef <laughs> Pastef ñoo gën a ñoo maanaam Pastef bu ñu wax bu ñuy wax dëgg dëgg dëgg dëgg Pastef ñoo gën a ñàkk violent ci Sénégal Pastef ñoo gën a ñàkk violent ci Sénégal Pastef du parti bu violent Pastef du parti agressif Pastef du parti violent du parti bu agressif kenn musu leen dégg ci dóoraate ak a loolu moom ku mun a waxal Pastef rek waxal ko parti yu violent yi mooy parti clanique et yi fi nekkoon waa PS violence moo leen fi bàyyi woon dóoraate ñoom Khalifa Sall dugub dóoraate agressé waate jamaate rek lañ waa PS nekkee woon fii ñu ci bëri gaañ nañ leen ñu ci bëri rey leen ba université ñoo fa indi violence waa PS PS bu mu pare waa PDS PDS indi fa violence ba suñ jonn yàlla tey PS PDS APR ñëpp ils sont violents saaga waate rayaate ñoom ñooy tiir ak nit ay oto di taal ay oto di taal ay kër ñoom la Maimouna Ndour Faye lu mu waxalul fii Pastef ci lu ñaaw amul Pastef musu ko def dara kon tey la Pastef di toog naan day attaqué may mën a nduur fay xam nga ne loolu waxi kasaw kasaw la Pastef lu ko fi mun mën a nduur fay waxalul sos lu ñaaw amul mais kon du tey la ñuy song may mën a nduur fay quand même du tey buñ ko waroon song song nañ ko bu yàgg moo tax violence bu amee nañ ko xooli ci viol violent yi nañ ko xoole ci ñoom ay Barthélemy Souda Diaz lañ ko xoole ci ñoom ay Khalifa Dugub Sall lañ ko xoole ci ñoom ay Karim Wade nañ ko xoole ci ñoom waa PDS nañ ko xoole ci ñoom ay APR nañ ko xoole ci ñoom waa PS ñooñu ñoo violent mais passif ak lépp lu ko Khalifa lu ko lu ko lu ko Maymouna Ndour Faye Ndour Faye waxal ci lu ñaaw bu fekkoon dañ koy ñuus ñuus nañ ko bu yàgg kon du tey donc c'est des gens qui sont pas violents kenn du leen xaare violence ñoom lu ñu yor moom mooy ay idée ak idéologie ay nitam mun nañ nekk ci internet bi nag di fippu mais duñ ils sont pas violents sincèrement ils sont pas violents kon violence moom xam nañ fu muy bàyyeekoo mooy parti yi fi yàgg PS PDS APR ñooñu ñoo violent seen leader sax dañu violent même seen discours dafa violent ñooñu Pastef benn parti la boo xam ni boo ko tooñul du la tooñ boo ko tooñee du la tooñ mais boo dalee ci kawam mu fipp Pastef moom loolu ñëpp mun nañ ko accepter Pastef mooy parti boo xam ni du la tooñ te du la njëkk a song mais nag boo ko song boo dalee ci kawam mu fayu wala mu repousser la loolu Pastef ñëpp ko ko xamal donc violent moom dañuy riposter Pastef dañuy riposter mais duñu songu ay ay taal ay kër ay lakk ay oto ay taal ay ay nit loolu waa PS PDS la ñoom ñoo amoon ay calo bleu marron de du feu ñoo gis nga ñoom tur yooyu lañ yor Euh, waa waa waa waa PS aussi ñoo ñëpp yooyu lañ yore woon ay comité de bastonnade ay attaque violence donc ñooñu ñoom lañ ko xamal donc affaire Maïmouna Ndour Faye boobu noonu comme pour vous dire affaire jalousie la affaire njaaloo la affaire jël jabaru jëkkëru jàmbur ñu ñuus la ñoom xam nañ loolu te duñ la génneel benn doomu aadama bu bokk Pastef bu ñu xam ràññee ko naan la kii moo ko agressé talu gars yi taluñu ko te benn jam-jam la du ñetti jam-jam fenkat yi nañ arrêté benn jam-jam la jam-jamu paaka la ci loxo kenn jamu ko ñetti jam-jam fen rek la ñuy def duul naa liste yi ay mbokkam ñu mun a fen mun a duul dul naa liste yooyu ñooy wër naan ay ñetti jam-jam laak fii la dañuy fen de tot tot duñ la génneel mukk ñetti jam-jam ca loxo ba lañ ko jam nii paaga mburu fatt nañ ko ma nga këram di waxtaan génn na bu yàgg ma nga këram di naan ataaya barki Seydina Muhammad ma ngay wax di xaaxataay di wéy fen rek la def du rek la ñuy def naan ñetti jam-jam kenn du la ko génneel ana ñetti jam-jam fan la am dul naa liste may leen ñu jàmm yéen yéen ku saagul sa ndey yéen dama leen di dama leen en dul naa liste senegal yi caa ta ta ta caapa yaasin bu jóg na duul naa liste la non suñu réew mi war nañ ko defaraat waaye nañ nangu réew mi nañ hold up réew mi nañ nangu réew mi bu laajee armes yi nañ jël armes nangu réew mi foqati ko ci loxo yi toog muy dox yi jaaxaan saw muy dox toog dul naa liste nañ ko foqati barke rasulaay buñ ko deful duñ ci génn réew mi yàqu ci loxoy doome xaj rek ñoo ko yor di ko paasante defkat bi bu defee duul naalisi bi duulal ko fenal ko nu mu gën a rafetee sosal baadoola ba taxal ko tiiñal ko mu woo téléphone buur ba ñu waa ak kontaan nga waaw gis nga nu ma éliminer baadoola ba donc noonu la Sénégal di doxe noonu la senegal di doxee lii dañ ko war a jóg dañ ci war a jóg jëlee fi ñii journaliste yi yàq nañ sañu réew mi ku la dàq fen nga ne ma kii la concours fen la ñuy def concours fen kër yëpp a ngi jooy ndax dul journaliste ya ñooy dugg fekk ab gor sosal ko fenal ko tiiñal ko taqal ko rocc ko dóor ci kaso ba dem toog noppaliku ji encaissé noonu la ñuy encaissé imam Alioune Badara Ndao journaliste yo ko toro ñoo ko dugal ci ci yomal xëy am nii ñoo ko sosal naan ay téléphone satellitaire ay day ci air bi eh, imam bi mi ngi yoroon ay carte téléphone mi ngi yoroon ay garde corps mi ngi yoroon ay ay ay gars yi takk ay bombe nucléaire loolu lépp ay journaliste ñoo ñoo reylu imam Alioune ñoo ko yóbbu tey ci kaso bi nii ba ñu ko ak gaz ko ba rey ko ñoo ku tëj lu moo la tëj ñoo fa bàyyi Amidia Amidia force occulte ah financement terrorisme lépp en complicité avec des journalistes ku dee Sénégal journaliste yàlla rey moo tax lu leen dal yéen sénégalais yi génn leen ci xeexu bukki béy du ca wàlli xeexu bukki béy du ko àttee xam leen seen bopp ngeen bañ a yéen yéen yéen ñu war leen compatir ngeen di compatir yéen ñu jàpp seen i njaboot fenal leen tiiñal leen taqal leen tëj leen rey yenn xale yi plus de cent et quelques gaañ ñenn ñi toroxal leen tott fenal leen sosal leen ñu war leen comme ñu war a compatir ñoom condamné wuñ dara ci yéen booy yi génn ñu leen di sosal xalifa dugub génn nan non dañoo war a xool ñii lan lañ leen génnee Barthélemy génn di di bëgg leen def ay bandi ñu ñu génne moo tax agression yi bari donc ñu ngi leen di def ay agresseur dul naa liste boobu noonu génn naan euh, est-ce que yéen waroon ngeen bàyyi terroristes euh, yi ñu génn moom may mën a ndur fay tey ñu firil ko jam benn agresseur bu bokkul ak dara politique firil ko jam nokk ko benn jam ci ci loxo mu génn ngeen naan je compatis je compatis moo tax man moom dama ko teel a wax compatiruma ma dañoo waroon rey ndeyam man loolu laa wax mooy sama waxu démb di sama tey dama ne may mën a ndur fay man Mollah Morgun nee naa dañoo bu ma ko yëgoon ku la doon agressé ma ko yógu dinaa ko dolli deux millions na réellement mu tàggali sa bopp ak sa baat billaahi waa ji mer mer mer mer naa ci barke rasulaay bu ma ko yógaloon ma jël lu ma yor yëpp jox ko ne ko réellement ndayam bu ko bàyyi bu ko jam daggaleel bopp beeg baat bi tegee ko nële dooma xaj la parce que c'est un c'est un imbécile benn imbécile boo éliminé ci société bi fu nekk nii elle va revenir elle va revenir day revenir at di chercher le naturel il revient au galop le naturel da nga koy éliminer une bonne fois il faut l'éradiquer de la de la société ñun ñu am jàmm vraiment parce que dina ñëwaat di ñu agressé di ñu fenal di ñu sosal di ñu tiiñal moo tax amuma benn compassion man man sama compassion mi ci armeel ya mooy xale yi ñu rey mooy xale mu ndaw moo mu nekk Parcelles Assainies policier bi visé ko visé ko ak xam yi nga xam ne caraxam yi dagg ndeysaan visé ko ba mu rafet na ko dal xale ba ne këndang daanu deret ba di tuuru kooku laay compatir kooku ba léegi sama compassion mi ngi ci kooku mi ngi ci xale yooyu mu ngi ci xale yooyu nga xam ni ba suñ jonn yàlla tey jàpp ñu kenn sama xol loo ñooñoo ci fees sama xol may mën a nduur fay feesu sa nekku ca sax nekku ca nekku ca ñooñu ñooñoo am lu ma ñooñu ñoo ñoo am lu ma metti loolu moo moo des ci sama xol bi war na ngeen am seen fulla ak seen fayda te bàyyi saytaane te bàyyi saytaane loolu leen gis ne <laughs> sa compat yi sa compat yi ngi sa baay ceeb bu tooy lay añee compatiral ci loolu so yaay day rey boppam pour pour jox la loo lekk compatiral ci loolu situation yëpp Macky Sall moo leen ci yóbbu doo compatir sa sa baay am problème mu 1000 francs nga war a compatir je condamne ni sa baay ni sa yaay nu Macky Sall toroxalee sa baay ba mu am problème pour jox la loolu lekk je condamne ni sa Macky Sall toroxalee sa yaay ba mu am problème jox la loo lekk je na ni Macky Sall toroxalee sa njaboot ba sa sœur di cakatu je condamne ni Macky Sall toroxalee sa frère ba muy génn teg ataaya di ñaan ñu may ko lu mu jëndee warga ak suukar je condamne loolu kondam ne man foofu la ko sama condamnation féetewoo je condamne li Macky Sall seetaan askan wi ba tey ñi dem doon ay agresseur di firi ay jam di jam gaay di nangu seen saagi di daw je na je condamne li Badou Pouye def ci njaboot googu noonu nga xam ni jàpp leen toroxal leen ñaari xale yu dee bu suñ jonn yàlla tey mënuñu jàpp agresseurs yi mënuñu jàpp criminels yi je condamne gendarme bi nga xam ne moom mooy euh, commandant bi jël toute une famille tëj leen ci kaso yi plus de douze personnes sosal leen tiiñal leen taqal leen ba suñ jonn yàlla tey ba jàpp papay xale ya jiñ leen ni yéen a agressé benn yéen a menacé de mort je condamne loolu ngeen war a ne ragal leen yàlla ci li ngeen di def di ngeen deede ragal leen yàlla bàyyi leen ragal nit te di ragal yàlla ragal ngeen nit yi trop Sénégal gars yi dañoo ragal nit yi seytaane yi dañuy ñëw wéeru fenn rek ñeneen ñi ragal daw je condamne xamuñu lu ñu condamné je condamne gis nañ benn Barthélemy Dias ñëw duul dafa si condamné rek yow mel ni sanday liggéey nga génn je condamne looy condamné da nga fàtte sa baay daa am problème jox la loo lekk je condamne je condamne je condamne dëkk bi ni mu méttee ba sa sa yaay pour mu jox leen looy lekk il faut mu jaay taabal dajale fii ñaari mango ñetti di tax je condamne je condamne François Mancabou bu ñu ko dóoree ci gris ba mu dee ñu ne am nañ vidéo bu 13 minutes ba suñ jonn yàlla tey joxuñu nit yi je condamne am leen fullaak fayda ngir yàlla yërëm leen seen bopp nit yaa ngi condamné ci seen situation ngeen ngeen fàttali seen situation naan da ngeen di condamné ci ay ay xaj ay xaj onze bébé yu ñu calciné je condamne président bi ñëw ne gaaw leen wax ma tur yi ma def lu ma def te tam leen ngeen suulee leen fosse commune lañ leen yóbbu courant moo leen grillé ba ñu wow kongu mel ni këriñ je condamne man moom am na leneen lu ma tàll du condamné ci ab ab buy taxawaalu lu mu ko def baax na ngeen conseillé ko na bàyyi jëkkër jàmbur yi na bàyyi jëkkër jàmbur yi voilà bu weesoo loolu dugub dégg naa ko tey marché bi dugub ak Barthélemy Diaz dem nañ fa di griller di indi ay xeex la liste est longue Mariama Sagna boo ko fiy wax tey Euh, dem jógoon France ñëw nday euh, et cetera et cetera dafa la liste est trop longue gars yi ñuy rey li ñuy rey ci biir commissariat yi kenn xamul lu mu day musul am enquête li ñuy rey ci gendarmerie kenn xamul lu mu day musul am enquête ñi rey ci mbedd bi kenn xamul lu mu day munu musul am enquête musuñ jàpp criminel ñi ñu ci mbedd mi ci kaso yi ci gendarmerie yi ci police yi ci commissariat yi kenn xamul lu mu day la exhaustive ñooñu laay condamné je condamne ñii di daw bay daanu ci géej gi di dee mat des centaines de milliers de sénégalais Macky Sall musul condamné ci loolu musul tiwite ci loolu ñun bu ñu dee kenn duñu condamné ñoom ñu agressé leen ngeen di condamné <laughs> am na nit yu xamul seen bopp nag xamuñu seen xetu ngemb ak seen oduru silib billaay ku ca xam sa ndey mbaa nga xam sa baay boo waree réew xam nga boo wartee réew waaye yéen nit ku ci xam sanday baa xam sa baay war waroo nekk dof mais yéen ku leen rey kenn du condamné ñu jëm ko benn paaka ci loxo kese nga xam ne benn esparadra moo ko faj ak benn alcool mercurochrome mu takk jóg dox toxam ngeen ni da ngeen di condamné yéen ku leen juróom yërëm leen ku leen juróom lu waaj ndaw si naan gone Sénégal ku leen juróom yërëm leen di rey kenn du condamné boo leen toroxalee kenn du condamné boo leen di torturer kenn du condamné gune Sénégal ku leen juróom yërëm te ñu leen di rey nag buñu leen dala dalee ñoom ñu ngi <laughs> je condamne je condamne te ñooñu ñoo rey ñooñu buñu leen di rey kenn du condamné ñoom ñooñu buñ leen di rey kenn du condamné mais ñoom bu ñu laalee ñooñu ñoom ñu condamné yow li jàmm ngeen foog ni ñii est-ce que jàmm dal na leen est-ce que jàmm dal na leen war na yërëm seen bopp de. non billaay wallaay peuple sénégalais bi da nga leen di xore yërëm leen école yi lañu war a tëj jël boy yóbbu leen dugal leen ci bibliothèque yi yëy loo leen kayit yi ñu yëy livre yi jàng yeewu instruction voilà la vraie révolution instruire leen bàyyi bourrage de crâne yi ñu yeewu tuuti jox leen tuuti ndox mu neex jox leen lekk bu baax tuuti ñu mën a seen seen xel yi mën a réfléchir ku la gën a dof nga ne ma kii la ku la gën a torox mooy dem di jooy dëj dëju borom alal bi koo xam ne ci moom la li mu am yëpp ci ci ñoom la ko jëlee amuma benn compensation ci dëmm yooyu moo xam nañ léegi nag dugub laay waxal dugub dugub muy Khalifa xalifa dafa war a nekk mag bañ a bàyyi Barthélemy Dias di ko foowee li may wax nag dama ko xam parce que génnaloon naa leen fii rëbb dëmb bu tàng jër jër jër jër jër jër bërki démb tuuti ñu dee guddi googu bërkaati démb live naa fi live boo xam ni dootuñ ko dolleti ñuy woowante ñoom dugub bis yi mat des centaines de milliers ci sama live ba di ko di ko di ko di ko di ko signalé ba mu tëb safoon na sàpp ci rof tàngoor goo xam ni barki alxuraan laa la wax toll na leen foo xam ni Khalifa Sall ci boppam guddi googu nalawul ñu def seen délégation dem ba sama benn nijaay Lopi Diagne Lopi Diagne mooy sama oncle boobu sotti woon farine Macky Sall France moom ngeen moom laa gis ngeen di dugal vidéo boobu noonu ba naan waaye bu ma amuloo lu may xool léegi ma saag daggal ndayam kooku sama nijaay la. vidéo bu ngeen di kooku naan Macky Sall sax bu ma amuloo ma xool léegi ma daggal ndayam kooku sama nijaay la ngeen dajaloo demati foofu mu woo ma ay naan jàpp ci. gaa yi ñëw nañ fii di ma nangam ak nangam di ma kii jàpp ci jàpp ci jàpp ci ne neewoon naa ko nag amul problème dinaa bàyyi noonu grace à toi pour deuxième fois ne woon naa leen da ngeen dem ngeen moom xalifa ci boppam woo na daam taal dama ko wax dëgg woowaat na ma léegi woo na daam taal ne ko nga gis moolaa nga waxtaan ak moom daam taal taal otoom daw ba ci man ñëw jël téléphone am woo xalifa Sall direct ma wax ak moom mu wax ci samay làmmiñ moolaa lii laa laa ma ne ko garaawul en tant que ab kilifa ñaan ma man amul benn problème mais nag man defantekat laa guerrekat laa te guerre safu mondial te xeex moo ma gën a kaay lekk xeex bu ma nekkee booy laa bëggoon dem recrutement armée donc xam nga ni kooku bëgg na xeex gars yi dañuy toog seen kër yi jàng échoué chômé dem armée mais man bu may booy laa doon rêvé dem armée dama doon génn yor sama loxo yi naan tat tat tat tat bañ naan kii dafa dof man kese naan damay geer ña ki kan lay geeral may dóor ci mbedd bi tat tat tat nii nii nii nag grand bu rom ma ne tël naa ko donc man geer dama ko mës a bëgg geer rek laa bëgg nag geer moo may dundal xeex rek laa bëgg ma xeex rek sama dund yo dama cee bëgg xeex ba faatu yàlla naa dee ci geer yàlla ma dee ci ay aspirine nag niwaakin bopp bi metti paracétamol man dama bëgg a dee ci geer nee naa leen boo la songee geer yéen a ciy des man dama leen di witta ba ngeen wàcc ba ngeen wàcc rek laay dundee man guerre moo ma gënal kaay añ kaay reer kaay ndekki parce que ay seen nit yi ñuy yónni ñu foog ni ñoom mun nañu ma ci ay saaga te man mii ma yaroo ci saaga nday màggee ci saaga nday mën saaga yëpp damaa bañ ba jànguma saaga nday wolof kese dama cee jàng espagnol jàng bu français bi jàng bu anglais bi jàng bu jàng bu bu bu bu coréen bi chibaloma hande Chiba Boloma Chiba saaga ndey ñaaw la damaa dem ba dëkk bu ma dem dama leen di wax jox leen ma sa dañ naan ma lii mooy bonjour bonsoir man leen soxlawu ma ko saaga ndey laa soxla bindal leen ma saaga nday yi ñu bindal ma bu ma demee Corée du Sud saaga ndey yi lañ ma njëkk a bindal ma ne leen merci ñu ne ma lu tax ngay jël saaga ndey man leen moom arrangé man dëkk moom langue saaga ndey rek ma ci neex ay bonjour bonsoir moom good morning laa boo comprendre yaa xam boo comprendre yaa xam waaye daal man saaga ma dem Corée Japon ñu jox ma saaga ndey ma dem Espagne hmm? saaga ndey yëpp laa mun ma damati ma damati Amérique saaga ndey ya ma ñëw Canada saaga yu canadien yi mun naa ko yëpp laa mun donc ku may woo ci loolu moom yow da ngay parce que munoo wax a wax a mu dugg ma te lu ma la wax te man ku la man du ma wax de ku la laa dagg ay bagaasam am looloo garaaw sëriñ sëriñ nga gëm ma ma dagg këppati euh, sa cuucu sëriñ bi def ko morso tegee ne boobu da laal parce que dama naan ne sa sa cuucu sëriñ wala tey rek ma këppati sa tey ma tey ma morso daggate corote sa sa sëriñ bi wala sa sa kilifa bi wala sa jantangam danga man donc xam naa fu may saaga fuy metti foo xam ne bu la laalee yow sa leader bu la tax nga may saaga dama kay summi génne ñaari dag opéré xuur yi génne ñaari doom yi jox ko xale yi ñu ñu ñu foo ci ñu ñu bul donc boo ma duggee ci yooyu dama dama lay corote loolu moo tax ñu rocceeku ndànk taxawee na le dem gis Lopy Diagne wax nañoo moom te man wax naa Lopy jaañ ne ko Khalifa Sall man ak moom lu ñu mujjoon waxante dëgg-dëgg man joxoon naa ko sama kàddu bu mu waxeek man nee naa ko bàyyi naa la eh, song amul benn problème père amul benn problème mu kontaan ñu waxtaan ree mu ne ma jël sama numéro ma jël numéro mu jël sama numéro doon nañ envoyé ay message di nuyante sa dëgg-dëgg di nuyante muy grand boo xam ni je le bu ma génnaatee mooy bu mu jàppaate fii naan reewande peeru dàll laak reewande yére laak ku ko neex solak ay xale yi waruñu génn lu dañ ko war a lijjanteeg bu ko sosalaate bu ko sosal sonko boobu laa ñëwaat roof tàngoor rang mu dugg ma rocci ñu ne lii lan la moo laa lan la ma ne jël naa ñaari xuuram de këf naa ñaari xuur yi ñu ngi nii ñu ku xuuru kan ma ne xalifa jël naa xuur yi de ma nga de ci tak ci tàngoor gi laa roof dama roof loxo rek génne ñaari xuur yi laa kii te bugguma ko woon jël coq yi laa bëggoon jël far yóbbu ñaari xuur donc noonu mu dawati dem ci daam taal guddi googu yëpp nalawul naam na ma ma dugal ko ma ne ko bul dugal bul dug bu ko dugal bu ko dugal maa ñaari xuuram yi moom la bëgg a jël si fi bu ko dugal de bu ko dugal mu ne ma ah waaye joxel ñaari xuur jàmbur man du ma ko jox benn xuuram na génn ci sonko ma génn ci moom bu duggee ci sonko man ma roof ma ma roofe rocci lu ma yóbbu rek moo xam ne affaire bukki la rek bugguma nga jël ko mu woowaat ma fii dugal naa laavandaa rek daantaal muy ñaan yamu ca mi ngi may woowaat naa xalifa nee na ngàppale ko ci saaga yi ab kilifa la non moo laa daangam daanga ma ne ko xalifa bu ñu laalul duñ ko laal ñu ngi koy bugg a féetale Barthélemy Diaz non loolu Khalifa du def yooyu Barthélemy Diaz la Barthélemy Diaz ma ne Barthélemy moom Juda Diaz moom aw ma jotam aw ma jotam ndax bu Khalifa ñàkkee fayda ba Barthélemy Juda Diaz di ko defloo yu ñaaw di ko defloo yu bon mu mel ni ab geen ci ginnaaw Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz war a def sale boulot bi mu toog seetaan ko loolu moom la neex mais man Barthélemy Diaz nawloowu ma ko sincèrement nawloowu ma ko nawloowu ma ko bàyyam defkat la woon fii yu ñaaw rek la doon def baayam cogg la musa doon ànd na ak Abdou Diouf ànd na ak tey mi ngi ci Macky Sall ci baayam dafa sàcc sañu alal yóbbu ko Amérique mu jàngi mu dem fa cartouche amul benn diplom ñëw di naan ay sum-sum jooni walkeer sum-sum ñokkotoon naan ay wiskéem di taaweeku dara xamu ko donc kooku nawloowu ma ko kon Barthélemy Diaz na ko xalifa Sall waxal ba ma nawloo ma Barthélemy Diaz donc mënuma fee nekk di wax waxu Barthélemy Diaz vraiment di ko may promo <laughs> Barthélemy Diaz du 15 15 Mali du ko donc nay leer donc Khalifa Sall boo bëggul ma roof ma roofati la tàngoor waaw fii laay am rëbb dëmm ci opération rëbb dëm ma rob léegi c'est vrai que man dama am kàddu nag sama gaay dama am kàddu xamul tax ma am kàddu sama kàddu waaye wax naa leen lu leer waxuma ne damay bàyyi ay Khalifa Sall déglu leen bu baax fu ma ñëw la wifi bi dafa dafay day jàpp wifi bi quoi te man jàpp ma wifi sama sama données laay utiliser loolu moo tax muy dem di ñëw ok ñu continuer wax naa leen lu leer man Mollah Morgun man Mollah Morgun si ñëw ma compromission ak kenn ab soldaar laa bu taxaw Sonko nee naa leen moo leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi gën leen set munu leen tilim di ko tilimal képp ku tilim bu koo jege dina rokko sanday képp ku tilim takk sa day ku mel ni Barthélémy Dias takk day foo dem di xeeñ nga bëgg a forcer nit yi ne moom Sonko daa takk déedéet takkul te doo ko takkal te boo bëgg a ci moom ma rokko sanday ay ku yu tàng jër nee naa leen xam naa fuy metti boo fi nekkee nag damay attaqué Barthélemy Diaz bu boobaa Khalifa Sall day kii man Khalifa Sall laay attaqué léegi la daam taal tam woote waat wax naa ko lu leer nee naa ko ma wax ak Khalifa maa ngi numéro bu ma neexoon woo ko bu ma neexoon message ko léegi ñu commencé ratatati mais man négocié wu ma sama sama sama leader négocié wu ma ci négocié wu ma ci aw ma ci aw ma ci négociation nay leer nañ dox seen dox ñu dox suñu dox nañ dox seen dox ñu dox suñu dox duñu seen moroom nay nañ xalifa nag saa yu Barthélemy Dias songee nan day jéem a nawloo boppam ci Sonko di fene sos man dinaa rokkos nday ba Sall dugub ki ñu yore sa un milliard huit cent wax naa ko Dame wax naa ko sama oncle Lopi Diagne nee naa awma compromission Sonko ku dugg ci moom wala nga koy bëgg fenal wala nga koy sosal wala nga koy jéem a takkal man di nga ma gis kooku moom <laughs> sama sama ngor mayu ma nit bëgg a fenal Sonko wala sosal wala ji takkal ma lay seetaan loolu moom nay leer donc kooku maa ngi koy yónnee encore Khalifa Sall direct direct maa ngi koy yónnee fu am violence ñoom la Pastef barke alxuraan bu doon violence kese tey bu ñu fi incarné woon violence laaj leen Macky Sall ba muy dof doflu coûté na ko cher coûté na ko cher Pastef mooy ñoo xam ne ils sont pas mais ku dugg ci ñoom des Macky Sall jàpp na fi Karim Wade nokk ci kaso bi dara amut xamuñu woon sax luy cocktail molotov Abdoulaye Wade ñëw na fi ba dem cocktail Molotov ñu ko ñu jàpp doomam dóor ci kaso bi quatre ans cocktail Molotov musul tàkk ñu jàpp Khalifa Sall jigéenam yi ne dañuy def ndar point out ndar point out defuñu ko ñu fenn góoram yi dem làqutu ci seen pooju yi ñu ñëw ci bu Sonko dëkk bi tàkk cotu lay jëkk la nax ñuy financé cocktail yi molotov sur molotov vum vum vum cocktail molotov briquet almet pneu essence cocktail vum briquet almet dëkk bi di tàkk ba maki Sall tey jii mi ngi wax waxu amnistie ka daw ak a làqutu kon ñu dañ mun xeex mais duñ songu duñu tooñ mais lekk xeex moo ñu gënal kaay lekk bu ñu tegoon ceeb war ko lekk ñu ne songu nañ sonko ñu jël ceeb boobu bàyyi ko lekk dem jaayi ji ko ñu jël ceeb bi ceebu jën bi dem jaayi ko ci internet bi ne kaay leen jënd ceeb bi ñu ñëw jënd ceeb bi ñu jël xaalis bi def ko ci ci guerre ñu financé ko ci guerre foofu la ñu toll. déggoo dama ne buñ raxasu ba set te boolu ceeb fas yéene dànk rek ñu ne ñu sonko lañu attaqué dañ naan arrêté gars yi dañuy arrêté ñu jël boolu ceeb bi jaay ko. gars yi bi boolu ceeb bi ñu jël ko financé ko guerre ñu dem naan sañu ndox sant yàlla def financé ko cocktail molotov donc Pastef ku ko song yaa fay des force boobu force de frappe bu ñu am kenn amu ko du ñu songaate mais bés bu ñu doon songaate ba ñu songe Macky Sall ba ñu songee ba ñu riposté dëkk bi yëpp tàkk na laaj leen ñaata Auchan a tàkk laaj leen ñaata autoroute à péage tàkk ñaata laaj leen ñaata dëkk bi lanak ak lan ak a ay milliards ay milliards ñuy couper ay internet loolu ci xeexu Pastef la musa am ñuy couper ay internet du couper nang parce que xoolal ay xeexkat la yor mais duñ tooñ nag force yàlla lañ yor duñu tooñ duñu attaqué kenn dañuy toog waaye boo leen songee bu ñu jógee ba taxaw parce que alxuraan force Pastef doomu aadama mënu ko téye doomu aadama munu ko téye yëfu jinne la Macky Sall ma ca duggoon nan force reste à la force reste à la discussion la wax force reste au dialogue force reste à la bi fan la mujjee ci xeex bi force reste o dialogue dañuy waxtaan pardon <laughs> kon Khalifa moytul gars yi raylu la moytul gars yi sànkulu la bés bu la Barthélemy Dias jéem a dugal ci sa ñaari nit yoo xam ñaari boy yi nga for jox leen weccet bës bu ñu la dugalee ci xeex ak ñun da nga daw de barke Seydina Mohamed di nga daw ak loo am moyen ñun amuñu moyen de mais ñun ay représentant ay xeexkatu yonent bi lañ sans moyen loxo neen te dañ lay éliminer li la Barthélemy Dias di jéem a dugal boo ci duggee da ngay des yow yaa fay des yow yow da nga fay des par force barke alxuraan attanuñu attanuñu Macky Sall attonuñu waxuma laa yow attonooñu attention Khalifa attention woowal say juróom-ñaari militant yi yor yoro ci fukk yore woowal say juróom-ñaari militan quatre jigéen ak trois góor woo leen nga yeddi leen bés bu ñu duggee ci ñun doo doy bay des doo doy bay des te bu boobaa Macky Sall dina la reetaan ëpp ñu la mooy mais ñoo la ëpp ëpp ñu la mooy mais ñoo la dàq xeex ëpp ñu la mooy mais ñoo la dàq joxe bakkan dañ la koy wax nag da ngaa tuuti si suñu doo ci warga doo grain ci warga bi doo grain ci warga bi loolu rek laa lay wax père Barthélemy Diaz waxal ak moom balaa mu laa sacrifier fenkat la moom du nitu dara vrai doome xaraam la Barthélemy Diaz du nitu dara bullshit la vrai góor jigéen la on n'a pas oublié élection législative yi suba ak ngoon laa la wax suba ak ngoon kilifa suba ak ngoon mu woo kilifa suba ak ngoon non jàppale leen ma non liste bi kilifa non wax ak sa waa ji non chaque jour loolu lu ma fekke la lu may dégg loolu moo tax kilifa mus ko ko wax ci c'est man seede ci kilifa kër gi mus ko ko wax ci benn télé barke alxuraan dëgg la Barthélemy Dias topp nañu duñu saraxu ma ñàkk sama ndey sama baay billaahi pour ñu dimbale ko pour mu doon maire na Dakar Khalifa sal di ko xeex indi Rose Wardini kii Soham Wardini la indi woon la Khalifa indi woon gëmul sax Barthélemy Soham Wardini la indi woon mu jaaxle suba ak ngoon mi ngi muy woote jàppale sama gars yi jàppale leen ma sama gars yi jàppale leen ma ci sama gars moo tax bu ko kilifa waxee ne ko bu ko na ko weddi léegi ñun yaa ngi fi moo musu ko weddi musu ko weddi fii gars yi bi ci suuf la rek mais ci <laughs> kaw la rek mais ci suuf <laughs> déggoo lu ma leen wax di <laughs> léegi rek sama gars yi ñu ngi dugg fii fa laa jëm nii maa ngi ànd ak ñoom ma woon ko benn document nii quoi buñ ma yónnee benn coow bu am ma woo borom ne ko dama soxla document yi dégg naa ni dafa am ay document ci saa la ma yónnee document tar ma koy woon sama copain mu ne ma coow mais yow man xaw ma foo jàpp xale yi gars yi nii mais di suñu autorité yi fu nga leen jàpp garaaw na de <laughs> ma leen ma ne ko ci xuur ñaari xuur yi laa këf tee boxam rek boxam boxom ni caaf man du ma lekk caaf seen xuur yi laa yëy boxom rek boxom autorité yi seen xuur yi laa këf boxom loolu moo tax mën ne <laughs> ma ne ko waaw dama bëggoon euh, parce dañ maa wax ni dafa am ay détournement donc ma soxla woon ay document ma wax ko ko ne ko gaawal bu dee yor nga documents yi le vite vite possible parce que maa ngi ci yow waa ji dóor ma teg teg teg teg yëpp yëpp yi fees del ma ma sama portable nag keng keng keng mu ne ma lan la ci laa ko woon mu ne ma yow ma yow ñii autorité kii ma kii ko waaw moom la kay mu ne coor ba ñi foo leen tee mën leen ci xuur suuf gars yi ci kaw lañ nekk ma roof ñaari loxo yi pëp këf ba mu dëgër këj ma naj wax ji bu bëree rek ah ma boxam nga wàccaat tuut na dal na dal na dal mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa bul sonal askan wi si kaw ngay nekk di yuuxu askan wi so ah, ma xëcc ci suuf boxam ah moo laa non mbasa mbasa na dal na dal na dal bàyyil askan wi dallu bàyyil askan wi dallu na dal na dal na dal ah waaw d'accord waaw wàcce ko wàcce ko dina ci wàcce ah, wàccel baat bi wàcce na wàcc na wàcc na wàcc volume bi na wàcc oh. moo la baax na waa baax na bi ne salaw jàmm am ñëpp may nit ñëpp jàmm ñu nekk ci kaw di yuuxu sonal askan wi man ci suuf xam naa man naa damay sànjaaf donc nag pour l'instant damaa jox sama kàddu ki nga xam ni moom mooy Lopy Diagne sama oncle bi jox naa ko tam daam taal nee naa ko pour l'instant aj naa ko euh, du ma mun a bàyyi xuur yi nag mais dinaa ko téye mais duma ko boxom xuuru xalifa yi naa ko këf naa ko téye naa ko ma ko bàyyi mais du ma ko boxom nee na ma kilifa la bàyyil saaga yi kilifa la bàyyil saaga métti na ko trop métti na ko trop saaga yi nga koy saaga kilifa la ma <laughs> kilifa fan kilifang kilifang kilifa yi booy yi réew yi ñoo leen di faj booy yi réew leen di faj nee naa leen nee ko nag boxatu boxamatuma xuuru xalifa yi mais mun naa ko téye parce que du ma ko bàyyi parce que faqamaan la suba mun na ñëwaat di def yëfu dof ak a wax waxi kon xalifa fu nekk nii bàyyi naa boxam sa sa xuur yi mais maa ngi ko téye maa lay xaar ba nga yëngooti wala wax fi wax dof di ma gis di jël ngeen ko yóbbu ko ci Barthélemy Dias naa ay Barthélemy Dias mooy def yooyu nanga nanga man sama yoon nekku ci man soxlawuma xuuru Barthélemy Dias yuñ tàpp yi góor jigéen la góor wat bang la góor yaay may ma ñeex la du dara du nitul tus man bu xalifa bi laay téye ba mu naju pour l'instant foofu laa yem yéen xam ngeen ni bu amee ay ay ay ñaari booy suñu booy Grand Yoff ñaari booy yuy sànni xeer <laughs> kan mooy dugg ak ci sànni xeer kuy dugg ak Pastef ci dóoril molo tof kan mooy dugg ak Pastef ci ay boyal ay kër kan mooy dugg ak Pastef ci ay bloqué ay bloqué ay circulation ci ay bloqué ay autoroute ci ay sëf kan bu xeex bi tàngee ñoo fi nekkoon de Xalifa ñaw fi kenn nekk fi ñun ñoo ñu kese Pastef kese ñuy dugal ñuy attaqué ñuy jël booy du dugal di sos di tiiñal <laughs> saway am nañ système mu xeex de barke alxuraan am nañ système mu xeex Pastef nag ils sont pas violents te man wax naa leen ko nguur gi dinañ ko jël te man dinaa ñëw je serai le Jérôme Bandiaki de Pastef je serai le Jérôme Bandiaki de Pastef incha allah kooku je le dis haut et fort nëbbutuwuma Pastef moom bu jëlee réew mi incha allah kenn engagé wu ma man maa doon le Jérôme Bandiaki de Pastef dina armé wu jusqu'aux dents dinaa wut des éléments sûrs yoo xam ni jaar nañ ci armée bi mun nañ fetal mun nañ lépp cocktail cocktail kalashnikov ñu wër bàyyi cocktail yi jël kalashnikov yi ñoo leen ngeen xam ne ñoo leen gën a violent ñoo leen ñun dañuy téere di kontaan ratatata di re <laughs> ratatata <laughs> dëgg ba ngeen ba ngeen ba ngeen xam ne ñi kii kii nag beneen niveau la ne beneen niveau la ne boobu la laa leen di wax di téere di ree di téere kontaan di tirer kontaan incha allah di ngeen xam ni yéen violent wu leen di ngeen xam ne yen doo dara moo tax seen taat yi di tëgg tama da ngeen di tiit nekku leen ci jàmm moo tax ku ci dugg naa ah moytu leen non non leen fi bàyyi ñii bu leen fi bàyyi ñii <laughs> du yéen a ñuy fi bàyyi ñun ñoo fi bàyyi suñu bopp. ku toog ak Macky Sall non Macky fexeel tout booy dem bul fi bàyyi gars yi de bo loolu mooy lan boo leen fi bàyyi dinañu ray boo leen fi bàyyee ñii ñu ray de <laughs> kon yéen xam ngeen lu leen di yoot lu tax foo leen di wax ak Macky bu leen fi bàyyi ñii Macky ngir yàlla jàpp ci bul fi bàyyi ñii <laughs> xam ngeen lu leen di yoot barke alxuraan xam ngeen di yoot xam ngeen lu leen de loolu moo tax ngeen tiit une deux ngeen ne Macky Sall dimbali ñu lillaahi war a suuli bul fi bàyyi ñi <laughs> du Macky Sall moo fi bàyyiwaate ñun ñoo fi toog par force force force doole mbaam ñoo fi toog bu soobee yàlla donc les gars on continue le combat lii mi ngi doog am ci réew mi moo tax Pastef du moroomu benn doomu Pastef état la dafa romb sax état président bu fi toog ragala ragal ba ne du def <laughs> élection ba ne damaa bugg a daw bàyyi leen ko fi man doyal naa suur naa <laughs> kon nga xam ni waa ji lu mu doon lum doon lu mu doon jaay lamb na de fii Sénégal koo fi doon jox nguur sax barke Rasulullah ne ko kaay jël ko jël du ko jël de moo tax bés bu ko Pastef jëlee réew mi réew mi xanaa ñu fatt frontière yi mais di ngeen gis dëkk bi vide dëkk bi vide borom garambu buy borom beeke yi borom ñetti tànk yi borom ñetti abdu yi borom maxtuuma yi borom toog muy dox yi fenkat ya dul naa lis ya di nga gis ñiy jaar frontière Guinée ya ñiy jaar frontière Mali ñee jaar ca ca désert ba dugg Mauritanie ñii di rocce <laughs> réew mi dina ne salaw di nga bëgg a tiire doo am koo tiire réew mi dina ne salaw ba nga naan fii xanaa si matière la. barke rasulaay lu mel ni papa joo xam ne day dugg ci kër kër gi ne salaw xale yi dañuy waaw waaw waaw paa bi de mel ni dañ leen wax noppi leen barke Seydina jour bu ñu jëlee réew mi journaliste yi dinañ taw ñii dinañ jaaree yoo frontière Mali ba ñii Guinée ñii Mauritanie dinañ jaar fu ne fu ñu ne ñii taw dugg ci avion yi ñii dugg seen rondalu nday yi cocc réew mi ne salaw barke alxuraan boobaa di ngeen xam kuy dóore mën kuy saaga waaye kuy raye mën kuy dóore yéen ci toll def ngeen ko de li ngeen mën def ngeen ko tiire ngeen ñu rey ngeen ñu gaañ ngeen ñu tëj ngeen ñu sosal ngeen ñu tiijal lépp lu ngeen mën def ngeen ko seen régime jeex na ñun tamit léegi nag dinañ def ñun tamit dinañ def parce que tam nañuy fayu moom fayu moom fayu amul amnistie générale ak général ak internationale ak intergénérationnel la ci am amul leen lu ngeen fi mën a def ba duñu fayu <laughs> na ngeen dee te wax naa leen ko barke alxuraan boo leen dee ma ñàkk sama ndey dinañ leen sulli billahi Antoine bu juumee ba dee ci diggante bii bés bu ma ñëwee dinaa laaj ban ban armel la ne ma ñàkk sama ndey dinaa ko sulli barke alxuraan dinaa sulli ndayam ba mu des même bu dee yax la même bu dee yax la laala dinaa ko sulli ak lu mu mun a dese dinaa ko dajale ba mu mat ma dëbbata ndayam ba mu xolal ba sama xol sedd ak lu ma ko fa fekk nag même bu fekkee dafay waaj a dina laa wax dinaa sulli nday Antoine ñàkk mu yaa ngi nii ah rek ma daxaar sa nday ko dëbb teg sotti ci essence taal ko bàyyi ko noonu dem sama yoon. barke rasulaay di pax dina fa nekk mais dinaa sulli ndayam teg ko sotti ko lu tuuti essence lu ma yoroon la fa des ci yaram ba taal ko dem sama yoon. wëri bu ak keneen ak keneen. yéen munu leen fee amnistie ba rëccuñu ma ñàkk sama nday sama retour Sénégal ñetti fan laa leen may billaahi lu ci des yëpp damay geer ak yéen barke Seydina Muhammad barke laa ilaha illallah mu ñëwee Sénégal dama ne quelques jours laa leen may pour repos général commencé nag wuti sama arme ba wuti arme ba arme armée boobu may dajale nag armée boobu ma nar a dajale négasi gars yi dajale gars yi dajale ci képp ku mun a manier Kalachnikov RPG 7 AK47 ñëwal ñu dem ba tan boobu ma essayé ngay dóor tat tat tat ok nice ku ci nekk ma jël sama xaalis financé la ñu wut ay oto topp gaa yi bu boobaa nag moom ngeen di xam yéen mënu leen def li ngeen defoon mën ngeen ko ñun tam dinañ won nu ñu mënee dinañ leen won nu ñu mënee bu ngeen ci tollee def ngeen ko bu ngeen ci tollee fenal ngeen ñu tiñal ngeen ñu taxal ngeen ñu tiire ngeen ñu def ngeen ñu lu leen neex <laughs> nangu nañ ñun buñ ci tollee nag dinañ fayu loolu bu li lijjantiwuñu ay gi ay loi et règlement de noo dañuy fayu dañuy règlement do compte balaa wax ay loi règlement ñu def règlement do compte pare lu ñuy def yëpp après ñu ñu dox lu ñuy dox yéen dofu leen deewu leen dofu leen deewu leen yéen incha allah loolu daal laa wax di wax Khalifa Sall moytul Barthélemy Dia dugal la ci ay erreur man nag wax naa la ko bii mooy unième fois bi ngay dox jàmm diggante man ak yow mag nga kilifa nga sama père nga duma la ko bañal non duma la bañal ba nga ma njëkkee wax nee naa la bàyyi naa la père kon nga xam ne man am naa kàddu ba nga ñëwaatee di di ñu ma rof la tàngoor lu tooy ci yow la dawati nga dem def délégation dem ci samay mbokk nee naa leen garaaw amul problème bàyyi mu sedd damaan nga ci daamtaal nee na non nee na kilifa la bàyyi saaga yi da ko métti trop bàyyi naa seulement si si et eh, seulement si doo jé doo amoo looy wax sama leader wala di ko song wala naan da ngay sosal prisonnier politique yi wala naan da ngay jéem a sosal ñi génn loolu boo ko defee jàmm na ñooy munu leen jàpp Sonko tëj ko ba pare génn di ko fenal du ma ko nangu non du ma ko nangu xanaa Sonko amul i mbokk xanaa moom Sonko moom amul i mbokk moom yéen da ngeen di fenal Sonko tiñal ko taxal ko tëj ko après génn di ko duulal doo leen ko ndayam duulal fii dañu nangu kenn du fi nangu nday ngeen di duulal Sonko ay yéen yéen ñu mun ndayam yéen dugal ko ci kaso yi génn di ñàpp sal la falo nday di wër di ko duulal ci télé ci média yi ku la gën a tot tot ndayam génn di ko dugg loolu duñ ko nangu Sonko dafa ay mi mbokk ku fi génn di ko duulal dañ taxas sa nday foofu laa yem ak yéen ak ku mun a doon xalifa keneen a ci yem Barthélemy ak Duda ku fi génn di duulal Sonko dinañ daxas sa nday laa la wax tëj ko ci kaso bi génn di ko duulal boobu ba léegi duul rek ngeen di def di wër ci télé yi dinañ ñàpp seen nday ngeen bàyyi duulalaate foofu laa yem ak yéen man maa ngi dem sama yoon ku fi wax dara ba ci Sonko wala ci Pastef rek woo ma ma toj cottu ndayam génne génne nday ay butitu baayam léegi teg weer ko ci mbedd mi dama xaj ñu di ñëpp sel nday bon yi ngeen naan bon fen mande ga naan sàngara ga cagatu ngeen fi nekkee naan da ngeen di def seen Sonko nawle dama xaj duma ci boole wax ju bari maa ngi ñëw dem sama yoon noonu leen duggee ci Sonko léegi man ngeen fi fekk ma ubbi seen ma xaram yi ngeen doon gars maa ngi ñëw dem foofu laa yem ku bugg am ak man problème bul wax ci Sonko boo ko laal ku bëgg ku dugg ci moom nag ma weñaar sa belefete yaay weer sa stringu nday laay weer fóot ba mu set weer ko doo ma xaj nit yu bon yi ngeen doon sos ak fen ak tiiñal ak taqal ngeen bëgg a def seen dund Sonko seen morom la tëj ko bëgg a wër di ko fenal ay may ma doon nduuru cagafay ak ñeneen ak ñeneen doomi xaj yi ngeen doon jaayur sama gars yi peace and love and maaw tey moom bii laa bii laa fëllee quoi bii laa de asalaamaaleykum. maaleykum salaam soo neen nga soo yéen. soo neen nga. Ah, ceeb ceeb ceeb waaw jaajëf fa cere ji de waaw ah, incha allah yaa sa ah, waay ñu ngi bëgg de nice ah jaajëf jaajëf waay incha allah non si si si. oui aywa.